اللهم خبره الكريم بعرف سزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi màggal guddik gën ak bi àdduna gàmmu atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga waa kër Serigne Mourtada Saliou Mbacké di leen si di gàmmu goo xam ne faral ngeen ko ànd ak sëriñ bi sëriñ Mourtala Mbacke ibnu sëriñ Saliou Mbacke ci diwaanu Thiès lay amee fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre atum 2021 di guddi gàmmu gu ñuy dundal si sunna di leen xaar ak programme bu mucc ayib guddi googee ñu koy dundal si sunna bu juróom-ñeenti waxtu jotee ba jàpp fukki waxtu si guddi 21h 22h ngeen di ànd ak kuréel Safinatul Aman 22h ba 22h40 rajas ak sëriñ Cheikh Sarr 22h45. jàpp 23h40 ak kuréel Nahju ngeen ci ànd ak ñoom ginnaaw boobee toftalu si waxtaan yu am solo diggante 23h40 ba 0h45 ay waxtaan yu ñuy jël siwaat ci dund ak taarixu yonent bi alayhi salaatu wasalaam fàttali njariñam ak taxawaayam dayoom dara du leen si ump waxtaan yu ngeen di ànd ak ba Bassirou Faye ak Serigne Abdoulahad Bousso ginnaaw loolee lu ko dalee benn waxtu jàpp juróom benn waxtu si fajar ñu jàng barsan jiyo bi allahuma qabrahu alkarim bi arfin saziyin min salaatin wa taslim ñu ci ànd ak Serigne Mame Cheikh Fall lii di ab programme buy màggal guddik gane yonent bi alayhi salaatu wasalaam fukki fan ak juróom-ñett si weeru octobre atum 2021 at mu jot ngeen si ànd ak Serigne Mourtala Mbacke mu Serigne Saliou ñu koy dundee si diwaanu Thiès